alors Goumbala. a rebondir mooy xëfoor li mu wax ñu ne ñoom ñoo yor conseil consi conseil constitution mooy décider nangam. waaw Yawandare ba mu ko defee lu ko ci ju Yawandare ba mu ko defee fan la mujj foofu rek laa koy bàyyi man je suis allé à yow boo xamee Bouna euh, derrière Bonduku à Finguessan maa ko fa fekk ak doomi Bagbo may leen bi ngeen di wax nous allons jusqu'au bout. jusqu'au bout ngoog ñu jox leen ñu tëdd ci ay naat doomi bag bu métis la yooyu dañ koo màtt moom ñuul ko ma ne jusqu'au bout ngoog bu ngeen nangoo ni négocier lii du ngeen ko am te damay wax leen xam nga compromis dañ koy wax di ko wax xam nga compromis fan la jóge Mussolini biñ ko daanee en Italie mhm. démocratie chrétienne moo fa nekkoon am doole ak de Aldo Moro ñoom ak le parti communiste de Berlinguer bi ñu demee ba nga xam ne pëccoxoo am na mafia commencé la mafia <coughs> la pieuvre commencé du jël réew mi en otage ñii rey ak def lu ne neex tu sais ce qu'ils ont fait Berlinguer moo dem gis la démocratie chrétienne ñu ko à cause du pacte de Yalta et le partage qui a été fait dans le monde zone communiste ak zone euh, occidentale man mënumaa yorum réew ndax pacte bee ko def c'est pas possible li ñuy def ñun le parti communiste danañ la bàyyi duutuñ la emmerde ci ay grave ak di la bousculer politiquement loolu mooy la démocratie mooy le compromis historique bi ngeen doon dégg entre la démocratie chrétienne de Aldo Moro ak Berlinguer moom lañ defoon pour stabiliser pays bi pays bi am jàmm Aldo Moro dañ koo rey mais ah, mais mafia ba amoon doole lii Camara mon ami wax xam nga Camara yow booy wax léeg-léeg ma lay déglu danga mel ne pilote avion boo xam ne bi avion bi dafa jóg rek dugg ci zone de turbulence mu bokkoo def commande automatique fi ngay waxee Sénégal àggagu fa Sénégal ñii ñoo yor justice bi yor armée bi yor lépp di dogal mais munoo bañ a waxtaan ak moom lii kii di wax naan kuy waxtaan ñàkk euh, xawma démocrate kii nga patriote nga wala doo patriot man defe naa waxtaan bii man ni ma ko gisee mooy ku ñàkk pexe man damaa ñàkk pexe moo tax ma bëgg a waxtaan ak waa ñàkk pexe moom lañ def il faut parler avec lui da mais sëñ Saliou na pourquoi tu as un mais a nit mën naa baax mën naa bon ba yàgg mu baax mais sëñ Saliou boo attam wax leen ñun ñi ñëpp ku ci nekk nekkoon nga bébé ñu lay boot ba yàgg nga nekk am bonkal évolution dafa am la générosité la générosité politique la n'existe pas xam nga ko non moo je amul générosité non fii ay intérêt fi nekk amul générosité amul ne prenez pas les gens pour des saints mais amul fii yow fii mu ne li ma wax Sénégal ah. situation fii mu ne bu eh, eh, eh, dialogue bu dialogue moom moo mën a tax ñu changé bu dialogue amul ñu xeet ci mbedd mi ku ne lu mu am jël. Mm. loolu leneen ñëw mm-hmm. da ngay teg yow li ngay wax par exemple naan parler de l'école et de l'élève c'est le président et le gouvernement d'abord installé. nag c'est toujours important de dialoguer li nga bëgg a wax mënoo ci dem. dialogue ci dem fekk moom ay blocage am ci dëkk bi ay jafe-jafe président bi moo ne mbir yaa ngi dox. économie baa ngi dox. yow jàpp nga ne mais nii ngi dox. mais moo ne moom moo ko wax. peut-être gisul nga ne woon ko ni pas c'est pas ça. mais il bu fi kenn jalo. Omar. da nga da ah, da ah. am loo doon. bu kenn jalo laaj Serigne Saliou. par rapport ak waaw bu kenn jalo ñu dem ay attends. mu nee na may ma c'est pas terminé. nemme c'est mhm. pas terminé. moom jamais. jalooguñu attends rek jalooguñu. Macky Sall nii ñëwuleen moo yor armée bi.

man daal moindre bi ma gis fii. mooy dialogue gi mooy dialogue ba loo am jël ëllëg nga denc ko. sëñ dil bi sëriñ Saliou di wax nag. mooy waaw ñoom Khalifa Sall ak ñooñu bu ñuy dil yow loo ci man mënoo dara ci dil bi. Ah, et eh, je ko hmm? gëwuma ko gëwuma dil bi. voilà c'est a vécu dans Gumbala. Hmm. lu bari de fekk na ma fi lu bari de ko fi fekk. mu di ko wax. c'est-à-dire yàgg na non non dafa nekk rek dafa nekk non non dafa nekk. waaw dafa nekk waaw dégg nga non non li mu wax déglu ma. mais mais c'est son avis c'est ça non non xam nga aussi. moom mooy la Serigne laaj ko si ak tey Mimi Touré ak Sonko quelle est sa position. laaj ko ak li mu wax Mimi Touré laaj ko waxal. mais on vraiment. léegi mu wax léegi. léegi contradictoire c'est-à-dire léegi waxal. quelle est ta position. ay yow waxal ci liñ la laaj ca affaire bi. waaye yow man de wax tontu ci li ma wax. tontu ci li ma wax xam nga man tu sais en l'aise quand je parle. je parle en dama ne. su ko débat bi indee non su ko débat bi indee ma wax. waxal waxal waxal dama ne su ko débat bi indee ma wax. waxal yow léegi yow quelle est ta position. on est dans le dialogue su ko débat bi indee. waaw ah. dinaa ci wax. waaw léegi wax ko wax ko mais c'est toujours ah, dans le dialogue. waaw waaw dialogue bi moom moo tax ñu wax ko. waaw non man maa la ko may waxal. non yow mënoo ma koo may. waaw sëñ Saliou mënoo ma koo may. sëñ Saliou. yow mënoo ma koo may ngay déggante nga nit ah, yow yaa ngi wax ma wax li ma wax c'est clair. li ma wax c'est clair. par rapport à mi mi hmm. a un pré si je l'ai dit yow loolu bu ma koy wax fii keroog fii fii la woon fii j'ai dit que ici y a un pré-dialogue. Boubacar li ma wax léegi Boubacar l'a confirmé yéen vous pensez réellement que président bi dina toog tudd ay tur wax ni comme ça sans pour autant que au préalable que gars yi gisandiwuñu seen biir ba pare. mais on est dans ce pays. mais mais mais nee man xamaa li mu la mais mais Serigne nii. si bën dëkk la ne. je suis dans ce pays là yow yaa fi nekkul. à cause de tes longues absences yow yaa dematul ci dëkk bi xamatoo lu xew ci réew mi. waa léegi. coalition Yewwi waa dama nag rek. ma ne coalition Yewwi. coalition Yewwi. PDS. Hmm. dañu xëy dem élection législative dañu xëy ne ale kaay leen ñun ñëpp nañu ànd léegi nañu dem élection mais dañ ko waxtaanee. Hmm. loo gis dina am ñuy waxtaan même 2012. avec Ablaye Wade am na kilifa yu jóg ne dem ni campagne yi bàyyi leen problème ñu jox cër kilifa yooyu ñu dem campagne am na fi en 2012 donc dialogue bi direct entre Ablaye Wade ak opposition même bu amul après am na ñu ko dox ci suuf ñu jox leen cër te Boubacar mii xam li ma ñu jox leen cër ci cër boobu ñu bàyyi ku ne dem élection li am am. donc dialogue dafa mos di am am na nag bu ñuy waxtaanee ñi si biir ñëpp di ak yoo xamante ni biir néeg la loolu mënoo ko bañ ak quel que soit celui qui sera président dans ce pays day am dama bëgg booy wax na nga wax loo xamante ni ku nekk président du fi am. waaw sëñ Ba waaw n'est-ce pas. xam nga ko nag. xam na ma may may ma rek ma indi la benn. Senghor wax ma dégg. xam nga guerre Guinée PAIGC mhm. ak ak ak kii Portugal le régime euh, raciste Salazar boobu moo fi newoon mhm. xam nga lu ko jeexal mhm. sangor moo daan dem di rencontrer le général bi fi nekkoon ne ko colonialisme bii ngeen bëgg a continuer en Afrique tout sens jeex na Senghor est allé voir à l'époque Mitterrand qui était à l'époque l'ami de du de, de, de le, le principal opposant portugais à l'époque xaw ma naan la tuddati wax ko ko ñu wax ko di ko dox di ko dox ba gaayen boobu Salazar yëg ko indi ko mu def coup d'état maintenant d'accord maintenant ils se sont battus euh, mais euh, euh, ñun la waaw ku nekk ku nekk am nga droit mais manifester ni nga bëggee réew mi ku nekk am na ci droit. Senghor daal doon na wax lenn. Mm. may ma seet nee na. Ah. une guerre se termine toujours autour d'une table. c'est possible commençons par la table. et comme vous n'avez pas le choix. l'essentiel c'est ah, d'aller dialoguer. c'est clair sa position leer na. li président li nga wax ni yëpp. Ah, xam nga ne li nga wax ni yëpp génn fii. dafa am lu bëri yoo énuméré. Mm-hmm. yoo xamante ni ne. li nga énuméré. à nos jours ñu ngi koy wax. opposition mosu ko kaas taxaw mener le combat comme il le faut comme ils l'ont fait aujourd'hui en mettant en place le front 24 ce front qui est là pour dire non à la troisième candidature ils ne l'ont pas fait quand ici bu muy nekkee affaire fichier électoral ils ne l'ont pas fait li Serigne doon ma kaas te tey nga wax ko te tontuwu la ci affaire carte d'identité yi ak carte électeur te barki keroog vendredi bi ma ko waxee fi ne la ma bàyyi affaire cadre te loolu bokk na ci. mais toi wax rek c'est important. c'est important dama la bëgg a non dama la bëgg a wax. lan moo tax toujours ngay wax ci carte d'identité. non xam naa li tax ngay wax ci carte d'identité d'accord amul problème. toujours li nga tax ngay tabax carte d'identité. waaw d'accord man xam naa li tax nga ciy wax. waaw d'accord amul problème. waaw d'accord loolu li tax nee na bu ñu nee non waaw ma ne. ma ne ma ne xam nga man. xam nga man xam nga man ndeysaan xam nga man su ma soñoon sax nit buy wax danaan ma lii la man danga naan ma lii la bu boobaa moo wax mais amul solo ci loolu carte yi de 2012 à nos jours je défie je défie je défie quiconque quiconque li ma war a wax li ma kaas de 2012 à nos jours mësu tegee te dama koy kaas muy li nga wax 2012 en nos jours ni nga yàgg di ko wax opposition bu ku nekk di di nekk leader bu nekk di xool sa mbiru bopp mosoo ko kaas ba ñu toll fi ñu toll. je suis d'accord. moo am na ne chaque jour ñu wax ko fii tey sax lañ jóg ne ah at yéewoon nag na jéem a xool malgré les divergences de mettre en place un front. Mm-hmm. pourtant yi ñu am yëpp ak yi ñu am yëpp. gars dañ ko doon toog di ko ah di ko waxtaanee. taxaw toogandoo ak président bu ko deful ñu taxaw mobiliser wu du ñu def li tant que defuñu nëpp bese. ñu ñëw taxaw Ablaye Wade mii tey ba mu waxee en deux mille dix neuf sur les l'histoire de mille dix sept xom deux mille dix neuf nañu dem réclamer boo leen demee élection dañ leen di dañ ne xam nañ pas bi li ko tax a jóg. alhamdulilah loolu l'histoire est mhm. dañ ko dund dundaat ko. n'est-ce pas. Mm -hmm. malgré tout ce qui se passe terewul fi ñu toll fii ñu toll fa maintenant. oui gis nga contentieux même bu amee nen. Mhm. contentieux yi bii mooy dernier contentieux 2024 dans ce pays c'est fini bis bu ñu weesoo 2024. kenn dootu fi waxati problème mu de ñaari mandat c'est fini. Mhm, mhm. at yi allah war bi suñu borom nañu ko defal mais à chaque fois du tere nañ xeex. mais yow leer na ne tey bu ñu génnee mille vingt quatre ba dugg ci beneen mandat bi mu jeex tàkk. Mhm. ak quel que soit qui celui qui sera président. très bien ñaari mandat la def. Mhm. c'est sûr. fii réew mi toll dëgg ma rek ma wax la fii réew mi toll moo demandé waxtaan. réew mi daal doon nen nen réew mi doon fi ñu toll moo demandé waxtaan te ci biir waxtaan bi dégg eh, nga ci biir waxtaan bi. dara ci biir waxtaan bi mooy yow Serigne. man de tu veux que Khalifa Sall tu veux que Khalifa Sall yow tu veux que et Karim soit candidat di bëgg nga ko loolu nga bëgg wala bëggoo ko. waaw damay laaj. du man maay taw waaye que yow dama lay wax parce que da ngay posé da ngay posé non dafa naan c'est-à-dire aujourd'hui. s'il vous plaît aujourd'hui ma constance. je suis en face ma constance. ma constance xam mooy lan mooy lan. j'ai toujours soutenu ici. Karim Wade et Khalifa Sall n'ont jamais perdu leur droit. ils n'ont jamais perdu. ils n'ont jamais perdu. xam nga ne ils n'ont jamais perdu. te je peux le démontrer. président Boubacar waxuma ay perte ak ñàkk a ah. perte. malgré les pertes et tout ce qui s'est passé. quel est le rôle que tu as joué pour que ces gens-là puissent retrouver le droit. rien du c'est comme ce qui s'est passé en 2012 lorsque Karim Wade a été entendu. emprisonné personne n'a osé plus de mots. C'est aujourd'hui que les gens parlent de Karim Wade et de Khalifa Sall. ah c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai. d'accord laissez-le terminer. waay déglu rek. donc aujourd'hui. waay déglu rek c'est une question. waay déglu rek oh. oh. dama la laaj juste Omar est-ce que tey pour Khalifa Sall ak Karim Wade bokk. est-ce que obligatoirement dañu war a dialoguer. waaw xamu tax xamu tax waaye dama la laaj waaye dama la laaj non dama ne peut-être dafa am yu bëri yoo xamante ni ne. da la réer mais dama la laaj aujourd'hui Khalifa Sall ak Karim Wade PDS lay waxal ak taxaw bu dee dialogue moo tax ñu war a mën a toog Karim Wade ak Khalifa Sall bokk. def leen ko. loolu boobu normal rek. président même bu normalul parce que tey réew mi toll foofu c'est-à-dire We've helped millions of creators improve improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform that helps